d'accord Arouna Coumba Ndoffène euh, Diouf euh, jusqu'ici li ñu jàppoon ci yow mooy ne euh, membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar ga tout le mois de mars vous nous avez entretenu de votre volonté de vous présenter à la à la présidentielle de 2024 alors da nga génn Benno Bokk Yaakaar da nga Euh, au palais de la République est-ce que vous avez présenté une démission au, président de la République est-ce que waxtaan nga ak moom euh, balaa ngay jël décision bi. alors je pense que su fekkee déclarer nga sa candidature déjà dafa am loo xam ni suivi la ba ma ko déclarer teguñu ci ñaari fan. ñu woo ma nangu suma passeport diplomatique euh, arrêté suma assurance médical pour ma famille dagg suma salaire je que ñoom xaaruñu sax may joxe suma lettre de démission par courtoisie au moins mënoon nañ ko xaar simplement dama déclaré loolu daanu suma kaw euh, li ci gën a tamit euh, li ci gën a jaaxle parce que administration boo xam ne saa yu ñu amee noonu dañuy utiliser jumtukaayu administration di ko xeex ak yow mooy une semaine après dama jot benn fisc redressement fiscal de quatre-vingt-six millions donc loolu ci benn semaine la amee rien que parce que déclaré naa suma candidature nee naa le président Macky amul droit ci troisième mandat loolu nag fi ma ko teg. non balaa ngay ñëw foofu balaa ngay ñëw ci troisième mandat bi nga ne c'était pas courtois ni ñu defee mbir yi mais est-ce qu'on ne retourner aussi le reproche est-ce que yow tamit c'était courtois après un compagnonnage de plus de onze ans ak Macky Sall et vous avez par compagnonnage bu yàgg la est-ce que gënul woon yow tamit nga dem. waxtaan ak moom ne ko man kat damaa bëgg a nekk candidat et puis lui il en tire les conséquences comme ni ko Idrissa defee. xam nga li am solo ci ànd mooy da ngeen di gisante di waxante le président Macky kenn mënatu ko gis. kañ nga ko gëj gis. je pense que ça remonte d'une année kenn mënatu ko gis waxatuloo kenn. il s'est entouré de nouveaux amis amul kenn koo xam ne xamoon na président Macky ca démb ni mu yomb a gis tey nga mun a ñëw rek gis ko président Macky Sall. déjà ma ñëw président de la république. ma ñëw alo mais bien sûr mais y a des collaborateurs quand même bon ñu ñu paase loolu. quand j'ai déclaré ma candidature. mais est-ce que balaa ngay déclarer sa candidature gëj nga ko gis ça fait une année est-ce que vous avez cherché à le voir est que bind nga ko audience est-ce que vous avez souhaité le voir. loolu c'est mon choix defuma ko c'est mon choix de le faire ou de ne pas et je l'ai fait dafa am lu bëri loo xam ne jarul ñu koy exposer fii te duma ko def parce que homme d'état la mais quoi qu'il en soit je suis un naa suma candidature déclaré ko immédiatement mu am une suite de de missiles qui sont venus yoo xam ne ça kii ko sax yëguma ko sax parce que passeport diplomatique moi j'ai fait le tour du monde sans passeport diplomatique dama mus a am ay assurance médicale même avec li ñu ma joxoon assurance médicale ba ma amoon ay Amérique topp na ma ba fii te moom la suma njaboot yore donc yooyu yëpp peut-être moom noonu la gisee àdduna àdduna nga nekk kilifa bu toll ni président de la République père de la nation ñu dénk la lépp loo xam ne jëm na ci suñu réew ngay teg ay citoyens jël les moyens de l'État di ko xeexe ay citoyens pourquoi parce que c'est des adversaires politiques méthode boobu le président mais depuis quand est-ce que vous êtes adversaire politique c'est depuis. depuis ma suma déclaration. suma euh, déclara depuis suma déclaration politique mais mais Arona xam nga moytul syndrome landing savane bi. Euh, jot la xam nga Landing Savané dafa ànd ak Ablaye Wade de 2000 à 2007 mu génn ne moom day présenté wu les Sénégalais l'ont durement sanctionné yow mënuloo dina baax nga expliquer Sénégalais yi qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a encore fait renaître euh, cette envie de devenir euh, président mais moom laa moom laa la bëggoon a expliquer dès le début qu'est-ce qui s'est passé moom laa la bëggoon a dès le début ah. c'est que pour que sénégalais yi et puis. soo ma dégg wax vous êtes vous étiez dedans et vous êtes comptable de tout ce qui a été fait. soo ma dégloo dinaa ci egsi. Mhm. mais dama ko tàmbali nga ne ma nañu xaar en deux mille onze dama dajeeg président de la république Macky Sall mu présenté ma un projet de société ma nekkoon candidat. ne ko sa projet de société bii doy na ma ànd ak moom ñu xeex Abdoulaye Wade ci troisième mandat ñu suñu xeex bi yëpp mooy M23 lañ ko àndaloon ak suñu yeneen natango politicien mu nekk xeex bu metti te dañ ko defoon au prix de nos de nos vies ñu ànd ak président Macky Sall yàlla may ko nguur gi mu répété partout ne du def troisième mandat fépp la ko wax mieux mu créer euh, benn référendum en 2016 ñun suñu cheval de bataille ci référendum bi pourquoi on a emporté le oui simplement parce que dañu assuré woon sénégalais yi ne xeex bi ñu xeex troisième mandat dootul am Sénégal ñu ñëw 2017 mu wa mu ne ñu ne ko mënuloo wàññi sa mandat mu dem deux 2019 arrivé à 2019 moom ci boppam fépp la taxaw fépp muy fii ci Sénégal ak à l'extérieur ne dootul def troisième mandat ça c'est son dernier mandat suñ ko fale sénégalais yi fal ko ñu toog en deux mille dix neuf deux mille vingt ay rumeur commencé jóg ñun ñu téye suñu kii rek di ko déglu deux mille vingt deux mille vingt et un rumeur yi gën a di yokk deux mille vingt deux nag mu posé ay jalons yoo xam ne dañu ne kii dafa bëgg a dem ci troisième mandat. jalons yooyu yan la. mooy déjà ay njooñam ci boppam dañu jóg. di commencer défendre le troisième mandat di défendre le troisième mandat ba moom ci boppam di wax le oui ou le non euh, ma lay laaj dans un pays tel que le Sénégal un pays souverain démocratique bu am constitution constitution c'est la Bible ci réew mi ci république constitution république constitution mooy kaamil ndax war nañu may un président de la république buy jàkkaarlook sénégalais yi ñu am constitution boo xam ne lépp luñ ko laaj dafa waroon a wax dem leen ngeen seet constitution bi lu mu ci wax muy wax un oui ou un non loolu mooy moom toog na ci constitution bi parce que un oui ou un non su waxee oui te constitution bi ne non violé na constitution bi su waxee non te constitution bi ne oui violé na constitution te constitution bi moo ñu war a àtte. ci charte réew moo ñu war a àtte mais jusqu'à preuve du contraire aussi Macky Sall waxul ne day def troisième mandat. le oui ou le non n'est pas normal. dans un pays mais waxul ne day def troisième mandat. ni oui et dernièrement il l'a réaffirmé. ni oui ni moo dak moo jaaduwul ci pays démocratique bu am constitution. dafa mel ni oui bi Macky Sall ko wax. 31 décembre 2019 répété waat ko. non xaaral rek 31 décembre 2019. la ko Macky Sall wax. en nombre de principe bi ko Macky Sall waxee 31 décembre 2019 te yow nga jàpp ne da ko gunge combattre le troisième mandat de Ablaye Wade waroon nga daqal ànd bi foofu mais dakkaloo ko fa da nga continuer nekk ministre de déjà nekkoon nga conseil spécial après avec Ron. et avantage de ministre nga continuer nekk ministre conseiller avec rang et avantage de ministre même bu dee amoo portefeuille ñu ñëw 2022 nga nangu kilifteefu Macky la mu def la kandidaa Benno Bokk Yaakaar à Biscuiterie xëy na buñ la boo gañe woon xëy na tey du demee nii mais saa a tey une expérience malheureuse par principe xalaatoo woon ne 31 décembre 2019 wala courant 2019 nga waroon daqal sa ànd ak Macky Sall parce que ca la waxee première fois ni nii ni non. mais na li nga wax yëpp problème de choix la j'ai fait mon choix y a pas problème y a pas à expliquer. merci que déglu ma y a pas à expliquer pourquoi en 2019 xam nga li am importance mooy fii ñu toll bañ naa troisième mandat bi. waaw mais ñun tam mën nañ la wax ne da nga xaar ba mu jeex. lan moo ah da nga da nga da nga on est à dix mois de l' élection présidentielle. yow nga ànd ak ni deux mille deux mille deux mille mun naa jàpp ne premier mandat bi il était dans les principes nga jàpp ne moom à partir du moment où il dit ni oui ni non nekkatul ci principe constitution bi. nga continuer ànd ak moom ba dix mois de l' élection présidentielle nga génn nga ne man bokk ma ci. may euh, fal leen je sais pas fan nga jëm. mais ce qui est important. non fi ma jëm mooy. hommes nos hommes politiques sénégalais waaw nos hommes politiques sénégalais tamit dañu habitué à ce jeu là da ngay nekk ci nguur nekk ci nguur ba nguur gi di waaj a jeex am na ñoo xam ne ils vont rester ah quoi qu'il arrive mais am na ñoo xam ne ils von trouver des moyens de s'en aller et de dire aux gens man ànduma ci woon mënoo ànd ak nit 11 ans nga xëy na yow. soo ko jëlee <laughs> noonu nekkul ci yoon soo ko soo ko analyser noonu c'est ton analyse mais man c'est mon choix de di quand je déclarer sama candidature aussi quand je du ma dugg ci sa sa <laughs> sa jéem jéem a kii yooyu parce que noo ko mun a expliquer aux Sénégalais j'ai le droit même à la veille des des des des dépôts ma déclarer sama candidature candidat en léegi nag le délai que bi may toog ak Macky Sall wala bu ma koy mun a toog je pense que c' est un détail c' est un problème. de choix Moustapha xam nga Moustapha noo ko mun a même rek. Moustapha rek même rek ma continuer s' te plaît. noo ko mun a interpréter damay toog fi di la déglu rek parce que c' est toi ton analyse. non c' est pas mon analyse. mais ce sont des faits Arona. ton analyse. foo ko mun a dériver foo ko mun a yóbbu c' est ton analyse xam nga ce qui est important même na. qu'on passe à d'autres sujets j'ai fait mon choix samp su suma ndënd et je veux briguer le suffrage des Sénégalais en 2024